ci carte yi mën nañu wax ne que c'est normal parce que euh, amul confiance diggante pouvoir euh, loolu loolu moom je pense que nañu insister quand même ñu nangu que am na euh, gis-gis la république ak ñi mu ànd ak dafa wute loolu ak gis-gis opposition mhm. loolu lu am la mhm. yàgg na depuis 2018 ba léegi Macky Sall réussirul am consensus politique mhm. léegi nag bon je je pense que aussi euh, ci démarche président bi lu gënoon ci opposition Macky Sall woote na du ko tontu léegi léegi damay wax rek man demuma sa dialogue mais ma xaar peut-être un mois deux mois trois mois après ton dialogue je fais mon mon dialogue. ça c'était la la démarche plus pacifique pour l'opposition mais soo gisee opposition bi tontu Macky Sall ne demuñ demuñu sa dialogue mais ñun dañuy créer suñu dialogue loolu mooy presse bi wax na ko ça ça crée une confusion et ça soo déggee nit ñi lu ñuy wax lu leen gënaloon ñoom sénégalais mooy mu am benn dialogue c'est ça qui est rationnel on a un seul état un seul président de la république les institutions elles sont uniques mais s'il y a un dialogue national euh, cohérent et pertinent ñëpp ñoo war a teew defe naa loolu moom euh, loolu moo gënal sénégalais mais man Macky Sall dina def dialogue am opposition dina def dialogue am xëy na ñeneen dinañ def des dialogues sectoriels mais le plus important pour moi c'est que initiative Macky Sall bu mu ko bàyyi il faut que président sóoraale que dialogue am bi dialogue opposition il faut qu'il trouve benn moyen pour pour am kenn ki nga xam ne mën na def synthèse bi si c'est quatre mois six mois en tout cas il faut pas que ñu dem ci présidentielle sans que mu am consensus ce serait grave que ñu dem euh, élection euh, bon Macky gisee ni parrainage opposition gisee ni parrainage code électoral Macky Sall gisee ko nii opposition gisee ko ni mais ça ça va créer la même situation bi ñu dund législative législative qu'il y avait des divergences entre Yewwi ak minister de l'intérieur ak la commission et cetera mais bu ñu demee ci euh, conseil constitutionnel dafa décider ñu appliquer ko et là on risque d'avoir le même cas à la présidentielle c'est-à-dire que Macky prend ses décisions il va au conseil qui valide ou il va à l'assemblée qui valide mais il, il va aller lui en campagne avec les conclusions qui engagent l'État et je pense que ça il faudrait que président éviter ko hmm. après les dialogues mu xool naka la ñu mën a amee synthèse Euh, pour mu gën a am des consensus euh, durables et c'est possible par exemple cons euh, dialogue bi suñu mënoon xam kan moo war a tirer kan moo war a présider dialogue Macky Sall bi ak celui ki nga xam ne moo nar a diriger dialogue F24 mais ñaari ñooñu mën nañu daje. parce que c'est genre pont daal entre les deux. non c'est c'est l'interdialogue. Okay. C'est ce qu'on appelle une concertation. Une concertation. Il y a une conclusion là, il une conclusion là. mais il y a des gens qui vont essayer de chercher le consensus